dikkati na jeex na président Macky Sall jeexal na tribune yéen kaay ne ma mandat ba jeex na waaye nag bul jaawaale bii mandat bu Union africaine la moom Sall ngaari lam tooro Bourguédé moo doon jiital UA at février 2022 la ko dooroon février 2023 mu wàcc yéen kaay des médias bi naan maan waaye gàcce ngaa laa ma Sall ngaari lam tooro Bourguédé yor na Union africaine na mu waree tribune naan kon présidence boo xam ne daal dinay dem layal Afrique fépp ci àdduna wërngal këpp defal ko ay plaidoyer sàkku ndimbal ak yërmande ci dénduk Afrique waaye tam àdduna bi daal di rangaloo rang bi jub ñu jox Afrique cëram gi nga xam ne mérito na ko am ci àdduna wërngal këpp Afrique coonoom ay ressources am ñu bañ di ko caxat caxatee ci anam woo xam ni jaaduwul deltu ginnaaw bi ñu koy deltul ginnaaw ñu bàyyi ko suufeel gi ni suufeel ay doomam mu daal di dak président Macky Sall fu président nekk dem na fa wax ak yow ci Afrique nag ak jëmub kanamam turbine naan maan waaye loolu lépp jeex na ni ki tey ndax man daa ba jeex na tey la koy able yéen bi naan maan lépp lu jëm ci Afrique ci sàmm ay valeur am waaye cosaan ci sàmm Afrique am amam ak koom-koomam ci sàmm Afrique ak moom président Macky Sall dox na ci waaye tey jeex na las yéen kaay naan man loo ci man ci moom Sall ngaari lam tooro daal dina yóbbu Union africaine foo xam ni kawe na lool yéegal na ko daal ci yëkkikaay bi turbine naan kaan boobu Sénégal ña ngay suufeer ay signalu télévision Cheikh Niass ci biir yéen kaay bi naan saa si tembe day yéenam nguurub Sénégal mooy tëj groupe a able Cheikh Niass naan ci yéene kaay dara jéem a faat jinne bés bu yàlla sàkk mu lay jommal lii nag la CNRA dëkkee ak groupe Walf Fadjri bëgg koo faat bés bu yàlla sàkk groupe bi di ëpp doole direct news naan bàyyee leen Walf seen signal mooy dëgg moom Pape Diogay Faye ci yéene kaay bi naan la Sidi tabax bu leen ko màbbal tëj Walf Fadjri mooy wor Sidi Lamine Niass te saa si tembe day fi réew mi toll bu doon presse bi équipe de football te ku dem feneen Sidi Lamine Niass am tey prime saa si ay njabootam di liggéey ndax lu bëri ci presse bi Sidee ko góor su mel ni Sidi Lamine Niass fu ñu ko teg le quotidien le quotidien naan kon boobu day magistrat yi ña ngay am yëngu goo xam ne doy na waar lool ay mouvement yoo xam ne jàppal cour d'appel ak tribunaux grande instance yi parquet généraux yi ci boppam daañu leen yëngal gësam leen ni guy Cheikh Tidiane Koulibaly daañu ko wutal ku ko wuutu saa si tembe nag woote gi tàmbali na le soleil yéene kaay naan Aminata Mbengue Ndiaye ma nga naan ñoo tey ànd ak président Macky Sall te ñoo assumé ak bilangam te naan séminaire ba jubluwaay ba du woon ut ab candidat waaye ñoo tey ànd ak président Macky Sall te ñoo tey it ne faax ci biir bilan bilan bi 24 heures yéen a kaay naan kon wax ci presse bi wax leen ci jafe-jafe ñaawteef gi nga xam ne ñi ngi koy teg presse ci ayuk président Macky Sall la amee te ñaaw lool tribune yéen a naan kon li ñaaw ci réew mi kay mooy violence nga xam ne fitna gi nar a yee ci réew mi te teguwut fenn yéen a bi naan ONDH mi ngi koy naqarlu l'enquête quotidien naan kon tension politique bi day ni mu ci réew mi ñaaw na ba jéggi dayoo Sénégal toll foo xam ne tiitaange jubloo soobu ci mën nañ ko am Sud Quotidien ne saa si tembe fi ñu toll ndax mënee si dinaa dellu ci ginnaaw ndax réew mi ci boppam li ñuy dippee liberte collective moo fi amatul ña ngay tuñ-tuñal di jàpp gaa yi ay militants yu opposition bi di tere ay manifestation moom président Macky Sall di def la yées ñam wuutu woon lañ fi def arrestation geeg caxat-caxatee waaye itam salfaañe liggéeyukaay yi jàmbur daal di bari presse bi ñu daal di koy xoj ba mu daal di étouffé Sud Quotidien naan maan ay am ci réew mi ña nga xam ne ñoo waroon yor kaaraangi am excès de zèle di tëñ askan l'observateur naan violence gi ban ko yeewee yàgg na ay slogan lañ génn ci réew moo xam ne soo ko toppee daal mënta jur lenn lu dul violence xool gat sa gat sa ay caw ak yeneenu kàddu yu ñaaw yoo xam ne ñu ngi koy dugal ci réew mi te kaddu googee bu jugee ci làmmiñ yi ci doole yaram yi la daal di jëm te bu fa eggee kenn mënta wax ba fitna du judd ci réew mi bis bi le jour mel ni ku naan kon violence baa ngi fépp di xoolal ma ñoom xene time ak hot time gars yi ne dañuy wàcc seeni mariage soli beecoog ñaawteef yoo xam ne dañ koy wane ci vidéo yi ku gën a mën a wane sa yaram nga ni kii te moo ne day koy def ña ngay waajal dugg ci néegu sëy lobs naan kon dafa mel ni déggoo ma de violence gi ci boppam la ñuy yee ci réew mi turbine yéene kaay naan kon nan nu may tuuti rek ndax saa si tembe ñi ngi ci waajtaayu téeméer ñeen fukk ak ñetti anniversaire bu wooteeg Seydina Limaamu Al Mahdi gi consigne ñu mujj yi ñu daal di koy joxe ngir liggéey yëpp mën a yemb laataa bés bi lii ko dijee naan man laay maxtaar wooteeg ren bi dee ci siiñu jàmm jàmm ak salaam la ñu woote dal la ñu woote stabilité réewum Sénégal la ñu woote boole xol yi la laayeen yi woote réew mu neex dëkk lool la ñu woote réewum jàmm ak dal la laayeen yi woote di leen woo talaata ak àllarba diggante Cambérène Ngor ak Yoof ci wooteeg Seydina Limaamu Almahdi di laataa loolu mbokk yi ñu ñaan jàmm te yendoo jàmm